ak njéggal ak sutura àddina yàlla nañu ko defar ak sutura àllaaxira di jiital ci nuyoo bi imaamu ratib bi di alxaaji Malick Ñang mu tegal ñu ko ci mboolem imaam yi nga xam ni ñoom la séqal jumaa ji nuyu mag ñi ñaanal leen yàlla ci turu sunu bàyyi mbay murun ñaan yàlla yalla yàlla dolle len yagal ci sunu kanam te may len wér bi nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam di delloo rek di fàttalente comme niñ koy waxé wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin جعلنا الله من المؤمنين المحلسين الخانتين الصادقين آه، يا نبي صلى الله عليه وسلم داي واخ واخ جو خامني دا فاي تنكو وايي فك واخ جا فتبارك الله ادنا له ndax suñu waxee ni fàttali dina jariñ ab jullit ab jullit te ab jullit yombul yàlla nañu ko yàlla def tax alquran bi wax ni almuminuun allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum moo tax léeg-léeg nga natt ndax yaa ngi ci groupe bi wala bokkoo ci di ko natt léeg-léeg dafay am solo ñu nekk ci weer wi nga xam ni ci weer yu tedd yi la bokk nga xam ni yàlla tere woon na ci yenent bi sax ñu xeex ci ca jamonoy xare muy weer bi di rajab shahrullahi al muazzam waaye en tant que jullit li ñu ci mën a nafar bari na bu weesoo fadaa il ci nekk ci koor ak azkaar ndax yenent bi sallallahu alayhi wax na ni man saama yawman min shahri rajab aminhu min azabil xabri ku woor benn fan yàlla protéger la ci mbugalu bàmmeel kooku am na solo waaye daf ci ëpp solo mooy julli gi nga xam ni soo fekkee da ngay woor te doo julli sa koor yàlla du ko nangu te cheikh cheikh omarul fóotiyu radiallahu taala anhu dafa wax boo kuy jullit war nga di ci bàyyi xel waxat yusibu aaridal insaani ma akmala salaata lirrahmaani nee na di gis ku judd ci lislaam di julli di julli ba bejjaaw te mosul julli julli gu yàlla nangu loolu dafay delluwaat rekk ci fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saaun kon buntu bi tijji julli wala buntu bi tijji caabi bi tijji jaamu yàlla mooy lab te yenent bi wax na ne assalaatu wala atuhuru miftaxi sala la salaata liman laa tahaara la su fekkee da ngay julli te amuloo laab dañu wax ni yaa ngi jëf jëfinu yéefër yàlla nañu ci yàlla musal kon làpp dafa am solo ci julli waaw tax yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala ni yaa ayuha allazina amanu gis nga yàlla ñi muy waxal ci groupe boobu mooy li waxoon ñi gëm yàlla waaw yàlla nañu ci yàlla boole ba su yàlla connecté woo ñu mën a am connexion tey am na yenn portable yoo xam ne boo taalee sa connexion wala nga taal sa bultu wala sa partage am na portable yoo xam ne bu ñu amee connexion bu ñu taalee seen bos da ngay mën a connecté woo ak ñoom kon yàlla su waxee yaa ayyuhal lazina amanu yàlla nañu bokk ca ñuy wuyu mooy bu la fekkoon ngay dox nga toog déglu waaw bu la fekkoon ngay dox dangay toog déglu bu ne yaay lazina amanu mu fekk la ngay dox an toog bu la fekkoon nga tëdd nga jóg bu la fekkoon ngay nga nga taxaw nga ngay dox nga taxaw bu la fekkoon nga taxaw nga toog ngir déglu waxu yàlla lan la bëgg a wax ak yow muy la isa xumtum ila salaati soo jógee ngir julli waxtu yu jot na nga ni man kat war a julli parce que jullit su waxtu julli jotee dafa war a julli waaw moo tax yàlla ni su julli jotee bàyyi lépp dem julli ci isa xumtum ila salaati baatu qaama qaama yaquumu su julli jotee na lépp taxaw waaw julli mooy feu circulation iman bu jotee rek na ñépp taxaw te dem julli ci lu yaa ngi ci bureau bi bàyyi yaa ngi ci bitig bi tëjal yaa ngi ci oto bi wàccal jógal julli yow la yàlla di waxal yow mi gëm mu ni فاحسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لولو موي فراتاي نياب فراتاي لا يالا تود سنني يننتي صلى الله عليه وسلم مكو تود متى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم njàppali jeex mu ne ah wa in kuntum junubankat fa tëhëru ñaari fan a ngi nii ndox amul courant robinet yi tëj nañu ndox amu fi mu ni su boobaa nag wa in kuntum marde aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alqaa'iti falam tajidu ma an su boobaa nag fatayammamu na ngeen tiim gis nga aaya bi jàngal na njàpp jàngal na sangu farata jàngal na tiim te loolu bu ci nekk jullit bi war na ko xam sëriñ bay ñang nag daan nañu wax ba mu ñuy jàngal laxdar mu ni mbuur kenn waru fi tiim bañ ko laajee lu mu ni am na waaye kan la ci ñun nag waxtu julli jot nga bëgg julli ci waxtu wi ah ndox amul nga ni xaaral ma dem ci ga kan la ko fi jaral kon lap dañ ci war di nafarat Tambal ko nag ca booy dem ca ca wanag ba gis nga mag ni dañ daan am

moo tax dugg ci toilette bi rek tuur ndox même pas une minute nga génn bëgg dem ci jàkka ji loolu moo waral wax jooju xat yu yusibu aridal insaan ma akmala salaata waaw daan nañ fàttali waxu Seydi xaaj Malick mu ne bu bu masaan julli ba pare di def bayaan ak mag ñi di leen laaye biir ci addinu nasiha na ngeen moytu di tuur ndox ci jàkk ji moytu leen di tuur ndox ci jàkk ji waaw buñ tuur ndox nag du question ko da jël pot ndox wala kopp ndox tuur ko ci jàkka ji mooy saw bi desoon ci toilette ba saw bi saw boobu na ko waroon a génnee toilette ba temps ba nga def ak effort ba nga waroon def ba jàpp ni lépp lu nekkoon sobe dañ na yow da nga yàkkamti da nga dugg rek parax parax rek génn mooy waral boo sëggee di jàpp da ngay sentir ni sobe bu bu buy di sa tuba yi waaw da koy sentir wala ngay dox di dem ci jàkk ji danga koy sentir te loolu boo ñëwee ba toog ci jàkk ji nag toq-toq yooyu day continuer di toq parce que temps ba nga waroon def ci toilette bi pour waajal julli gi temps boobu moo waxoon moo taxoon nag mu ni moytu leen di tuur ndox ci jàkk ji mooy na ngeen waajal seen bopp bala ngeen ñëw ci jàkk ji loolu tamit lu jar a bàyyi xel la parce que ci julli gi la bokk ndax julli gi du allahu akbar asalaamualeykum rek pare nga ci mais na nga koy waajal waaw dafay laaj préparation waaw comme ni équipe di dugg ci terrain ni muy def échauffement waaw wala soo bëggee def benn liggéey ni ngay def entretien wala atelier pour nga xam ne boo songee liggéey ba di nga ca am. satisfaction ni nga bëggee noonu la ware ci julli waaw ah, mbokk yi asalaatu sayun azimun julli lu màgg la waaw ah, julli lu màgg la waaw ah, moo tax ku ko xam doo ko caaxaane doo ko fooye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ni su masaan kàbbar rek wa sadruhu azizun ka azizil mirjal dënn ba day day yëngu ba mel ni cin luy bax sallallahu alayhi wa sallam ngir fonk julli mais ñun nag nañu julli rek waaw moo tax tanha anil fahsha yi boobu yàlla wax te ñu war koo gis ci kii julli maanaam bu fekkee abdu faati jullikat la ñu ngi jullee comme ñu ko yàlla santaane jaarale ko ci sayyidna Muhammad mu respecté laab bi respecté surutu salaati yére ba muy sol di julli mu bàyyi ko xel bërëb ba muy taxaw di julli mu bàyyi ko xel faatixa ba muy jàng mu bàyyi ko xel aaya ba muy jàng mu bàyyi ko xel rukon yooyu mu mat waaw mais da ngay gis koo xam ne naan allahu akbar rabbana wa lakal hamdu une seconde doo ko def ci rukon te dal boobu maanaam boo nee allahu akbar jàpp say om tekk goog nga loolu ci faratay julli la bokk waaw waaw wal i'tidaal waaw te yooyu ci farata yi lañu bokk waaw mais allah ba jàpp say om um rek siggi waaw subhaana rabbiyal azimi wa bihabdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihabdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihabdihi waxanaa bu dee trois trois trois fois sax minimum trois fois war na mën a mat di secondes mais allahu akbar subhaana rabbi mënoo wax sax benn subhaana rabbiyal azimi bu mat pare nga bëgg na ngay julli yàkkamti te al ajalatu min asheytaan te ñun moom jaamu yàlla lañ yàkkamti diine moom dañ ko dañ cee yàkka diine lépp dañ cee yàkkamti mais bu dee ay caaxaan ay fo dañ koy ñiit football bi bu doyul ñu prolongation làmb ji bu doyul ñu prolongation grand place bi tànk waxtaan waa ngi baraada baa ngi tege du ñu fa jóg mën nañ faa toog doot mais bu dee jàkka ji imam bu rokon wee rokon bu ma 30 secondes sax yow sa julli day yàqu ci biir julli gi parce yaa ngi naan si imam bi daal rokon bi dafa yàgg quoi